jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke si la mu nekkoon ci jataay bi ñaan ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche def dara tabaarakallaahu démb bi ñu nekk ci jataay bi maa ngi woon ci tomb bu tudd melokaanu temps ma limoon ci gaaw a romb gi limoon ci lu dem du dellusi tolloon ci li nit di am ci kaw suuf temps moo ci gën a seer ma tolloon ci mbokk ma nga xam ne dafa xamul importance su temps xamul valeur u temps ba toll ci sukuraat <clears throat> wan àdduna ginnaaw dëgmal alaaxira kooku bis boobu ci lay door a xam luy temps <clears throat> mu bëgg nu may ko benn temps mooru cinq minutes wala benn taamooru mooru de temps la bëgg ñu may ko ko bëgg ñu bàyyi ko rek ila ajalin xarib xeebul une de temps ndax dégg nga walaw suwayaatan faqat walaw suwayaatan faqat suwaya matul mëtul heure de temps ndeysaan waa ji la bëgg moo lu mu bëgg ci loolu lim yàqoon ci temps lépp la bëgg a defar lu yuslih ma afsada waaw lim yàqoon ci temps luñ ko may ci temps lum tuuti tuuti mu defar ko ci <clears throat> su fekkoon dund na quatre-vingt-cinq ans fekkoon dund na ko une de temps biñ koy may dana ci régler lépp lu yàqu woon ci quatre-vingt-cinq ans yooyu ah waaw loolu la bëgg te nim xamee temps may na ko loolu léegi waa ji proposition bi buñ ko ko defaloon buñ ko ko nanguloon lim yàq ci quatre-vingt-cinq ans mën na koo defar ci quinze minutes wala trente minutes mbokk yi affaire bu garaw la alxuraan di jàngale fii ah waaw defe naa laay jàng ca almunafiquun suuratul munafiquun lu waa ji wax waa ji sunu borom moonu moonu soññ ci dafa bañ li ko dal dal nu <clears throat> subhaanahu wa taala noo bañal li dal waa ji dal nu fi waa ji toll tollagunu fa wala am nañu fa tollugul li waa ji réere nan fexe ba buñ ko réeree mooy temps nanu xam temps te nangu ko gérer te nay ci na nay ci sunu temps téléphone yii rek léeg-léeg nit woola ci jël ci sa temps lu bari téléphone du waxtaanu kaay waaw ojo yi léeg-léeg boo ko toppee man suma xëyee fi nekk nii junni ojo li koy manqué ñett lay doon mbaa ñeent mille audio professeur mille ojo ojo bu nekk cinq minutes cinq minutes loolu ñaata minute la minute yooyu ñaata heure la waaw mille ojo mbokk yi ojo bu ne bëgg laa jëlal ah cinq minutes loolu xam nga ne tabarkàlla kenn xam nu toll ah cinq mille minutes <laughs> cinq mille minutes xaw ma nu def ba cinq mille minutes ñu xam ñaata heure la waaye juróom-ñett fukk la ak ñett loolu loolu da loolu ay fan la ay fan la di quatre-vingt-trois heures loolu ñaata fan la mat na nangami fan ndax vingt-quatre heures mooy benn fan nga defaat weneen quatre kon ñeenti fan ngu noonu suma ma mbaa jege na ko nga def ko ci audio waaw yàlla noonu yàlla dimbali waaye loolu doy na waar lool moo tax léeg-léeg nit ab audioom ñëw mu ne dégluwoo ko ndekete àgg guma ca waaw ndekete àgg guma ca <clears throat> waaw vidéo yi audio yi yëpp rek boo ko toppee sa temps bépp yem ca waaw léegi am na ñoo xam ne fu ñu toog fi nekk nii ña nga ca téléphone ba di sappe rek mu jël ci seen temps lu bari ñenn ña def seen temps ca kanam télévision ba waaw ñenn ñi def seen temps ca arrêt ba waaw yàlla nu yàlla yërëm ñenn ñi def seen temps ca euh, ca dàngam ca rek la ñenn ñi ca garam place ba yàlla si na amunu yaa ayyuha lazina amanu yéen ñi gëm ne alxuraan ji ci man la jóge yaa lazina amanu yéen ñi gëm ne maa leen yónnee muhammad moomii hmm. laa tulhikum amwaalukum wala awlaadukum an dikrillah bu seen commerce bi yàq seen temps bu seen doom yi yàq seen temps hmm. waaw fexe leen ba seen seen koom mi ngeen di wut bu mu yàq seen temps maanaam ko li ngay liggéey dafa am ci sa temps bi wàllam sa yaram am ci wàllam sa njaboot am ci wàllam ku ci nekk na jot ci wàllam te bu kenn yàq temps morom ja laa tulhikum tijaaratun wala bayun an dikrillah an dikrillah rikk waay bu seen alal yàq seen temps bi bu mu jël seen temps bi ba jël zikrullahi la ci yàlla am bu seen doom yi jël seen wàll ba noppi jël wàllu yàlla waaw Pate Fall Dieye directeur RTS la woon nee na temps bi dafa am wàll wu yàlla moom am wàll woo xam ne sa sa sa sa sa sa bopp yaa ko moom am wàll woo xam ne yàgg yàllaa ko séq mooy temps bi <laughs> boo ko divisé par trois vingt quatre heures divisé par trois huit la lay jox huit heures de temps yow huit heures de temps yàlla huit heures de temps yi ngeen bokk ko yàgg yàlla te du ko séddoo waaye laa tulhikum amwaalukum wala an zikrillah dafa am ko xam ne commerce bi muy def mooy jël wàllam jël wàllu yàlla jël wàllu boppam waaw wala awlaadukum am na ko xam ne kii ay doomam wala famille bi ñooy jël temps bi lépp <clears throat> temps bi lépp moo tax lu doy waar la mu ne wa man yafal dalik fa ulaikum alxaasiruna ku ko def da nga ko réccu <clears throat> ku ko def da nga ko réccu ku jël sa temps bépp def ko ci wut boo amee réccu boo amut réccu <clears throat> rawatina boo amut ngeen baal ma boo amee rëccu bu amul rëccu ngeen baal ma ku jël sa temps bépp def ko ci say doom kopp kopp kof kof kof kopp kopp kof kof buñ dundee nga rëccu buñ dundul nga rëccu fa ulaayika humul xaasiruun maa hmm? la ko wax de ñoo ñoo perte seen temps ñoo ñooy rëccu soo lëggee mu yàlla lu ñuy def kon nan la ñuy def mu ne waaw kay wa anfiqu joxe leen wa anfiqu joxe leen parce que liggéeyu àdduna li ci gën a yomb moo joxe du laaj temps bu bari <coughs> joxe laajul temps bu bari déedéet fi mu nekk nii <laughs> bu la jenn waaye yónnee dara ci yónnee kaay yi gone yooyu ñu yónni waaw duma leen tudd nag ndax sponsorisé gu na suñuy émission moo tax du leen tudd waaye am na ci dëkk bi ay gone yu ñu yónni mat nañ fi juróom benn ëpp nañ ko waaye kii yónni gono yooyu temps bi mu koy jëlal bariwut te sax loolu am na temps waaye tey kii bind sec cinquante deux milliards nit mën naa bind segu cinquante deux milliards ah ci di dix minutes maanaam cinq minutes waaw maanaam fii alxuraan mi ngi ñuy jàngal ci temps jëf yi bi ci gën a gaaw te du jël temps bu bari mooy joxe julli day jël temps baax na nag woor day jël temps aj màkka da koy jël waaw tabaski da koy jël asaka da koy jël yooyu yëpp day jël temps waaye joxe moom temps bi muy jël du bari am indi jeex na am indi temps bi li mu jël bariwul de am indi <laughs> seetet suñu borom nee na bàyyi leen jël seen temps bi jox ko seen wut ba mu jeex wala ngeen jël temps jox ko njaboot gi ba mu jeex nu ñuy def mu ne waa anfiqoo joxe leen dépenser leen loolu moom du jël temps mimmaa razaqnaakum mu ne waxuma leen ngeen joxe li ngeen am lépp waaye joxe leen ci li ngeen am min qabli an yaatiya ahadakum al mawt waaw balaa dee a ñëw balaa dee di ñëwal kenn ci yéen fa yàqoola muy wax rabbi law laa axartani ilaa ajalin xarib yàlla mu naa mu ne tey la la dix-huit may ma rek ba fin de mois ilaa ajalin xarib bi may ma ba fin de mois wala sax fin de mois sori na may ma semaine bi ñu jël bala vin rek wala la vingt sori na sunu borom may ma il est six heures onze may ma ba nit ñi yeewu rek huit mu yow looy doy li ngay ñaan mbokk yi kii temps lay ñaan dañ ko bàyyi ci àdduna mu dund juróom-ñett fukki at mbaalu ko jege xamutoon luy temps yenn temps yi ma ko doon def ca télé ba yenn temps yi ca téléphone ba yenn temps yi ca mbedd ma yenn yi ca garan place ba rekk ba ba ba temps jeex tàkk bi mu tollee ci sukkuraat lay door a xam luy temps mu ñaan boroomam prolongation foo jëm dangaa bëgg àgg deux mille vingt quatre mu ne lu ma koy doyee dangaa bëgg a jeexal deux mille vingt et un mu ne lu ma koy doyee <laughs> mu foo bëgg dem ilaa ajalin xarib ilaa ajalin xarib xam nga bu ñuy fubal taamoor yi ci fubal musuma cee seen quinze minutes quinze minutes temps temps musuma ko séen basket daal lañuy def ay temps mort def ko defaat rek waaye lii moom musuma ko cee séen lu ci nekk ci temps lay tege waaw boxeur yi boxeur yi trois minutes fois douze boxeur yi trois minutes fois douze ñu seet ba xam ko gañe basket vingt minutes vingt minutes football quarante cinq quarante cinq waxaaka saa po yëpp noonu la bëre daal laa xam ne moom temps bi ñaata la moom damay seen rekk ñuy xëy na ca ba ngoon jot waaw bëri moom xawma temps bi ñaata la moom tam li mën a yóbbu ci temps kenn xam lu mu doon waaye daal mbokk yi waa ji nee na rabbi law laa axartani ila ajalin xarib sunu boroom mu ne ah mu ne dooma may rek fii ak après demain dooma may rek prolongation wu deux jours wala bu ëppee benn fan wala sax man mu ni soxla na trente minutes mu loo koy doyee fa asaddaqa fa asaddaqa waaw ma joxe ma joxe la yàlla ne woon wa anfiqoo joxe leen lool la sàgg ne tey nag koo ko bàyyi bu dana joxe waaye mbokk yi ki tëdd ci sukuraat lal bi jël bindukaay joxe set du ko yomb ndeysaan mu mu joxe bi loo ci jublu mu ne wa akun mina saalihiina ndax mu bokk ci ñu baax ñi ñuy mucc waa ji xam na ne su ko yàlla mayaatoon trois jours bu joxe alalam jëpp joxe ci lu bari yàlla ne na lii lay bañ mu dal ñu mbokk yi homme yi femme d'affaires yi boroom xaalis yi sunu boroom daa bëgg sunu xaalis yi nu defal ko ci ci njabootam gi alaalamina ñi nga xam ne amuñu ñi nga xam ne yoruñu ñi nga xam ne mënuñu ñi man te am te yor te man nee nañ def lii balaa li dal waa ji dinu dal <clears throat> waa ji de moom wuur na ko ni ku ko ma mayoon prolongation mu baax waaw ku ko mën prolongation mu baax fi mu ne léeg-léeg nga gis koo xam ne kii ku ko prolongé loon tuuti rek mu am benn victoire waaye borom bi subhaanahu taala mébétu waa ji mébét bi nga xam ne dara nekku ci waaw lekketu kese la suñu borom tontu ko loo xam ne ku fa toll ba wax loolu lay tontu wala yuaxiru allahu nafsan ida jaa ajaluha wala yu axirallahu nafsan isa jaa ajaluha fulle yàlla weesu na prolongation fulle yàlla weesu na prolongation wallahu xabirum bi ma taamaluun li ngeen def lépp la yëg mbokk yi temps baa ngi noonu ku ci nekk ñun daggal nañ la li nga far a am waaw bu jotee rek ñu ne diw jóge na fi <clears throat> anamu denc nañ ko gas suuf ba mu xóot def ko ci biir dem gi ceeb lekk koo koy ku njëkk nga xam ne xamul luy temps ca ba muy ba muy sukkuraat la ko door a xam kenn ki moom xamul temps ba ba muy sukkuraat sax xamul temps kañ la ko xam moom ba ñu dekkee yowmal xiyaamati bi nit ñi dekkee yowmal xiyaamati mu seen ñuy fay mu seen ñuy fay mu yéen ku moom conteneur yële ñu ne diw mu ne diw man ñu ne ko diw mi nga dëkkaloon mu ne non daal di xool waaye ñeenti conteneur yi ku leen moom ñu ne diw waaw léeg ñu seen conteneur yoo xam ne ki ko am niñ ko xeebe woon ndekete moom temps yépp mi ngi ko doon gérer ci lu ko jëriñ fële waaw lu ko jëriñ fële waaye du fàttali fii léeg-léeg ñu ne ko moom le ñu ne ah ajaa mu ni muy ajaa man ñu ne menn amandi ah, kii de foogu moon dana am lii maanaam waa ji moom yow mel xayaam lay door a xam temps mu seen ñi géré woon seen temps te def ca lañ ca war a def seen seen konteneer yu tuyaaba yi cetëtëtët kenn ku ne ñëw tàllal sa bon ñu fay la ba wa tujza bi maa kasabat kenn ku ne tàllal sa bon ñu fay la waaw bu nawet bi jeexee nun lay mel ñu peese gerte yi joxe bon yi nun lañ daan mel jékki-jékki ñu ne financement ñëw na mag ñi daal di ñëw borom bon yi tàmbali la treize diwa fi njëkka euh, not anamu ñu ne ko ma nga ne mu woo mu ñëw génne bon bi muy seize tonnes ñu wàññi xaalisam jox ko booba xaalis bu xaalis bu bees tàq la daan doon <laughs> kenn mësu koo gis rek waaw ana diw naa mu ne yow la treize ci heure sàngam yaa ca tege mi ngi feem ñu ne waaw mu ne na ñëw mu ñëw am vingt cinq tonnes ñooñu xaalisam jox ko noonu lañ ko daan defe bu njëkk ndeysaan <coughs> booba réew mi moo daan gënul na fee neex waaw léegi nag la yàlla doy na dégg nga gaa yi di jël point yi bon yi wa yadxulu ahlul jannatil janna yomal xiyaam nga seen kuñ jox bon am euh, mu daal dem tàllal ko malaaka mi nekk buntu aljanna mu ne ko diw mu ne waaw mu ne ko yow sa kër mu ngi ci parcelle numéro sangam yaa ngi dëkk villa numéro sàngam waaw caabi yaa ngi nii yaag sa njaboot ak nangam nangam mu seen ahlu naari ña dugg ña ngay dugg naari yal nañ ci mucc ahlu naari mooy ñu amutoon ay bon wala ay not wala not ya baaxut trois sur lañ am ñee cinq sur vingt ñee lu ko yées ñee lu ko ëpp tuuti fa ma tanfauhum shafaatu shafiina sunu borom ñooñu ko ñooñu kenn mënul ñoom dara seetetet ahlu naar yi commencé nag ay waay buñ delluwaatun al al buñ delluwaatun adduna waay ahlu naar yi xool seen bon am trois te li may seen mbo seen ñee vingt sur vingt wala dix neuf ñoom gisoon nañ ko tegoon nañ seen bët dañ koo defutoon seetetet ay waaye bu ñu delluwaatoon àdduna kon de bu ñu jël seen mu baax moom la sunu borom di wax wallazina kafaru lahum naaru jahannam laa yuqdaa alayhim fa yamuutu wala yuxafafu anhum min adaabiha kadalik kadalika najzi kulla kafuur wahum yastariquuna fiiha rabbana axrijna naamal saaliha xayra allazi kunna naamal waaw borom bi mu ngi ñu nettali fii wax ju daw yaram ji waaw nee na ñi nga xam ne kafaru dañoo weddi temps ñi nga xam ne kafaru dañoo weddi temps waaw lu neex def ca fu leen neex def lu leen neex dem seen dund gi yëpp sànku ci loolu lahum naaru jahannam waaw lahum naaru jahannam gis nga dëkk bi fi ne am na ñoo xam ne ci seen temps seen temps lañuy ñu ba am nañ kër ak oto ak jabar ak nàngam am na ñu géréwul seen temps yooyu amuñu ko yooyu amuñu ko moo tax dem yomal xiyaam am fa kërug teraanga gérer temps daa bokk ci la koy maye dem yomal xiyaam ñu xañ la kërug teraanga sànni sa temps ci mbedd mi mbaa foye ko daf koy maye dafa am benn bés janax ak benn dëkkandoom bu ñuy wax salliir <clears throat> waaw janax ak benn dëkkandoom bu ñu wax salliir janax di gas ngir bu nawet bi ñëwee mu am fu mu dëkk salliir di yuux rek salliir yor gitaaram yori xalamam yori nàngamam di yuux rek bi nawet bi ñëwee mu taw paxum salliir gis ngeen ni muy tuute nawet ba ñëw faagaagal ko mu ñëw kër janax daal di sone daal di sone janax génn ne ko way mu ne ko man la sa dëkkandoo salliir mu ne ko doon say tànk mu ne ko bëgg fu ma fatu ak samay bagaas ak sama njaboot mu ne ko waayow salleer ci noor bi avant nawet bi ñëw ci loo nekkoon mu ne ko dama doon woy mu ne ko na bi yëpp da koo woy mu ne ko waaw mu ne ko yow kay amuloo problème kon nawetoo la fecc <laughs> sa liir xor ba tàng waaye liñ lim ko waxee dëgg ginnaaw dangaa nooroo fecc mu ne ah, mu ne ko nawetoo la dangaa nooroo woy mu ne ah, mu ne ko nawetoo la fecc rek daa delloo buntam moom janax dugg cam paxam taw ba àggul ca moom yàlla nee na ñi nga xam ne dañoo weddi temps lahum naaru jahannam laa yuqda alayhim kenn du leen rey fa yamutoo ñuy dee yowmal xiyaam kenn du rey kenn muy dee lu nit daj lu métti métti métti yowmal xiyaam amul dee mbokk yi bind bi jeexut bind bi jeexut dañoo am suñu ko war yëkkatee bu leen neexee ci kanam tuuti ngeen woote ci 88 628 98 98 ngeen bës deux nu àndu seen jotaay bi nga xam ne day tàmb day am lundi di am mardi di tàmbali huit di jeex dix heures quatre-vingt-huit six cent vingt-huit dix ngeen bës deux jërë ngeen jëf sunu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi nii taxaw yor seen i këyit bëgg leen a firiñ fàncal xibaar yi ci tubaab firiñ fàncal nu ko ci wolof ñaanal leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bii ak suñu àndandoo bi C3S c